administratif et politique yi fi ñëw suñu euh, sœur Fatou Diané jiite ko ànd ak autorité administrative yëpp di nuyu euh, maire dëkk bi euh, monsieur Sele Ndiaye ak di nuyu chef de village bi Cheikh Diop di wax ci turu waa Kaolack yëpp ndax ndegam ñoo ma wóolu ba jox ma seen baat kon war naa cee mën a wax waxaale ci turu opérateur économique yëpp. di fàttali rek bi ma sama waajur di indi fii alaaji Baara Mbuub ànd ak alaaji Cheikh Bawol Diop ñu indi ma fi ah ma nekk ak sëñ Maxtaar mu jox ak yërmande gu mag solo gu am solo ci ñun walbatiku tamit yëg-yëg bi nga xam ne nii moom la am ci boppam gëm ne moom. lii nga xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax xayrukum man ta'allama alquran wa allamahu mosul nangu ku ko gën ci lenn mosul nangu ku ko ñëw sax naan ko dama lay sarax daanaka boo mosee ñëw jox ko dara dana lay yàlla nga defal ndax fii ma nekk yàlla laa fi nekkal ndax man sax su ma mënoon damay jàngal nit alxuraan di ko fay di fay waajuram ak ñépp ba yowmal xiyaam yàlla fay ma kon kooku ku mës a gëm ci li mu nekk leen nekk ñun nag koo xam ne nii danga mënoo amoo ñu di la jàppale ñu di la yërëm sëriñ mat saxiir musul nangu ko laal xale ndax kenn ku ne li tax nga bëgg ko ki mooy yërmaande gi nga xam ne moom la tegoon ci yow te mus sa xeeb jëf wala mu rëyloo jëf ndax képp koo xam ne nii andil woon nga ko fi dara lu mu tuuti tuuti ak lu mu rëy rëy daf ko daan jël jël ko ne yow yàlla ngay liggéeyal ndax ku xam alaaji Maxari Géey ak alaaji Aatu Xulle ñoom lépp daana leen wax fii ne lii ngeen di def ñun ñaar ñoo ko bokk dama leen a nekkal fii yéen ngeen nekkal ma fële kon nag loolu la sëriñ maxtarloo Lo doon ci boppam ñun dañoo gis ci moom loo xam ne nii biñ fi nekkee ak moom sëriñ la maam doomu sëriñ bi waaye wuutewul ak woon ak ñun buñ masaana am lu ñu jaaxal bu ñu demee ci sëriñ bi bu ñëwee ñun dañ daan nekk ay taalibe sax di ñeme sëriñ bi muy wax ñu di ci teg baat wax ma kokki ku ma sa dégg sëriñ Maxtaar toog sëriñ Mat saxiir toog wax mu teg ci baat yaakaar naa benn taalibe mosu ko teg bët mu ànd ko nag sëriñ Fallou loo ak Ibrahima Lo ñoom ñëpp ñu nekkoon ñoo xam ne nii mënoon nañoo bàyyi fii daara ji dem defi leneen waaye dañoo fekk la leen sëñ Mat Saxiir digaloon ñu nekk ci bu baax a baax ah mbir mi nag ah dama gërëm sama papa ndax sama rak fa Abdou Aziz Si la ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ci daara ji te foo ko fekk dangay yaakaar ne moom da nga koo war a sarax dara ndax bi ma ñëwee léegi. daf ma làmb sama poos foog na ma joxeel ma joxe mu ne ma joxe waatal waaye loolu dama ne ko alquran li mu wax xus min amwalihim sadaqatan tutahirum wa tusakkihim biha nit léeg-léeg boo yoree alal nga di ko jël ko ci moom di ko dugal ci daara danga nga koo dimbale bu baax a baax kon nag ci loolu tamit laay gërëm tamit alaaji as ndaw alaaji moor ndaw mi nga xam ne nii moo doon wax léegi li mu def dafa am solo ndax ñun ñëpp xam nañ ne autonomie daara ji ci xiif suñ problème la woon ñun ñëpp ndax man mii de bi ma fii ñëw la ma gënoon a marqué mooy benn dogu mburu bu ñu daan xëy di jox dina jox a ah, wala miskit muñ la daan xëy di jox sama waajur daan ko def bi mu fi jógee ma di ko def ba mu yàgg may def ceeb bi ba mu yàgg ma xëy xëy rek yàlla dimbale ma ma dugal sama loxo ci ndékki li ba ma koy def 3000 personnes la woon te tey man nañ 5000 te boobaak léegi laajuñ ma dara ne ma yokk ko kon wóor na ma ne la may def ña ngi koy yokk lu ëpp la ma ca daan def loolu nag dama ciy gërëm Cheikh Lo Diop mi nga xam ne nii moo koy def. ba nga xam ne nii day toog lu mat atum lëmm duma ko laaj te loolu ay millions lu bari la jërëjëf Cheikh Lo di gërëm tamit sëñ Bass Khadim Awa Ba ci taxawaay bi nga xam ne nii taxaw na ko ci daara ji bërki démb la fi indi Seeku Dramé bu euh, sone di ko ci gërëm bu baax ak génération 80 bi nga xam ne nii ñoom liñ ma sas mooy ma wax leen ay tool ñu di ko bay nee naa leen incha allah tool yaa nga foofu mën ngeen a bay ba bay lu ma trois cent hectares li may mujjee rek mooy di ko wax daaray kokki moom daara la joo xam ne nii lépp lu fi yàlla def lépp lu fi nit def yàlla moo la koy fay wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raziqin jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, sëriñ macha allah ci taxawaay bu rafet bi kàddu yi rafet yi ak alquran ju leer ji macha allah euh, kon ñu dugal secrétaire général ci juróomi minute incha allah. mu tënk rek temps bi dañoo xoj ci juróomi minute secrétaire général ñuy fàttali rek ne secrétaire général moo jiite mbootaay gi nga xam ne moo boot ñu bàyyeekoo woon ci daaray Koki ñëpp nga xam ne liggéey bi yëpp moom moo koy saytu ci kaw ñoom ñoo woote assemblée générale bi nga xam ne moo nekk 43e édition kon euh, monsieur Samba Diop euh, incha allah ci juróomi minute rek waaw Massamba Diop waaw Massamba Diop ci juróomi minute rek incha allah. juróom juróom tënkal juróom bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabi rahmat sayidina muhammadin salawatullahi wasalaamu alayhi wa ala alihi wa sahbi wan wala bokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw ba ñu sante yàlla jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di euh, sant bu baax di leen gërëm ci teewaay bu màgg bu tedd bi nga xam ne euh, teewaat ngeen ko ren ci ngeen baaxoo ko ci at mu nekk ngeen di ñëw di ànd ak ñun liggéey bi ci anam gi nga xam ne noonu ngeen koy defe ngeen jànkuwanteel ay coono yu bëree bari ku ci nekk ak gox ba nga jóge yàlla xam na ne euh, daj nga coono yu bari bala ngay ñëw moo tax jataay bi boo fi duggee da xam ne rek euh, ñi fi teew ñëpp lenn moo leen yëkkati mooy safoo alquran waaye noyyiwaat alquranul karim ci jaww ju bees waaye dundaat ak ñooñu alquranul karim ngir bokk gi ngeen bokk ci ahlullahi wa mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñu yàlla ci kaw suuf ñoom ñooy ñi mu jagoo ca ñooñu ku nekk jullit bu nekk euh, bëgg na caa bokk ci yéen ñi xam ngeen ne ci ngeen bokk ñoo ngi euh, yëkkati baat yoo xam ne euh, mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawal ñoo taxawal ndaje mi yàgg koo taxawal depuis 1980 ba tey saa yu ñëwee mu mel ne rendez-vous la boo xam ne jullitu Sénégal yëpp dañ koo boole ci seen agenda nga xam ne balaa muy ñëw sax ñu bëri dañ lay woo di la wax na la ndaje mi kañ la kon mel na ne bokk na ci agenda wu jullit yi waaye bokk na ci agenda autorité yi nga xam ne si ne ñoom ñoo ŋànk réew mi ñoom ñëpp yàlla nañu leen yàlla fayal li ci nekk nag mooy mbootaay gi xam ne dafa nekk mbootaay goo xam ne lenn taxu ko jóg lu dul buñ ko résumé ci ñaari baat mooy nu ñuy def ba delloo njukkal daaray kokki waaye ba reconnaître li nga xam ne si ne moom la daaray kokki def ci ay ndongam yi nga xam ne ñoo fi génne depuis 1939 ay génération yu bëree bari génération bu romb rek beneen ba ñoom ñëpp ñoo booloo ca atum 1980 ñëw ci sëriñ bi ne ko dey dañoo bëgg a taxawal mbootaay goo xam ne dafa yittewoo soley daara ji nekk loxoy daare ji nekk tànki daara ji ci bitti ci képp koo xam ne si moo fi bëgg a si moom mu jaar sa diggante ak moom boobu ba tey nag mi ngi def ay yitte yoo xam ne si ne yëpp ci foofu la jëm amul benn yitte boo xam ne mbootaay gi dana ko def lu génn cadre boobu cadre taxawu daara ji cadre dimbale daara ji cadre gunge daara ji cadre taxaw ci wetu sëriñ bi lépp loo xam ne si ne yaakaar na ne buñ ko defee ñàngale mi ñuy def ci daara ji yar bi ñuy def ci daara ji dana jëm kanam wala dana gën a mucc mu mbootaay mu wax ko mbootaay gi mbootaay gi def ca la nga xam ne si ne moom la war a def kon ci loolu mbokk yi ñun dey amuñu lu sant leen ndax yéen yéen ànd ak ñun ci loolu gannaaw ba nga xam ne siine ne avant ñuy taxawal mbootaay gi ay ay mbokk yu baax ay parents yu baax yoo xam ne si ne sax ci daare ji waaye sax seeni doom mën na maa wax ne sax nekkuñu ci daare ji ñoom ñoo jógoon ne yan bi nga xam ne si ne Cheikh Ahmad Sakhir na ko diis na lool ca nag jullit yi ñu ngi fépp ci biir Sénégal war nañ leen a yombal tool tàllal leen buum goo xam ne moo leen di xëcc di leen indi ci daara ji ngir ñuy mën a xam li nga xam ne si ne moo fi nekk waaye tamit di dem ci gouvernement bi di ko wax soleil daara ji di ko informer réellement ci li nga xam na si ne noonu la daara ji dunde kon fa jazakumullahu anna xayran julli ji yéen ñëpp ñi ngi leen di euh, ñi ngi leen di sant bu baax a baax mboole seen fépp fu ab julli nekk ci Sénégal wala bitim réew ca ca woote bi si ci moom wuy si na ci anam gii wala ci anam gële ànd koo xiir goo nga xam ne si ne kenn mënu koo xayma ndax lu toll ci ay euh, ndimbal yi nga xam ne si ne andi ngeen ko mooy ñëwaat encore di manifesté wu ci li nga xam ne si ne moo nekk ci seen i xol moo nekk ci seen i yitte ngir daara ci biir daa euh, ci biir Sénégal waaye daara yi kokki en euh, particulier ci loolu nag danañ jagleel sant Serigne Fall dana ci ñëw léegi son excellence monsieur Macky sàll ci ndimbal yi nga xam ne si ne mi ngi koy def ci daara ji waaye mi ngi gestu daare ji ci loo xam ne si lu ñu xam la ak lu ñu xamul ci suuf ak ci lu feeñ loolu lépp mooy wane ne autorité réew mi teel nañoo xam ne li ñu def ci daara ji ñoom lañ koy defal ndax ay xale yoo xam ne si ne seeni mbokk dañoo amul fu ñu leenu euh, euh, jaaxle lool ci fu ñu leen di xamalee téereb suñu borom bi ñu indi leen ci daara ji ñu jàngal leen yar leen taxawu leen tàggat leen waaye former leen ci ay mbir yoo xam ne si ne ëllëg si biir bu ñu demee danañ mën a jànkuwanteek àdduna bi waaye aussi danañ mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen famille waaye jëriñ seen réew ndax si Ahmed Sakhir loo xam ngeen ne citoyenneté bu fees dell la feese woon ca daf daan wax ne réew mi d'abord réew mi d'abord li may def réew mi tax ma di ko def ca développement réew mi moo tax ma di ko def kon lii ngeen di def fii bu ngeen fi jógee jóge ci suñuy loxo bu soobe yàlla dañoo bëgg bu ngeen fi jógee amal njëriñ seen bu réew loolu ku ne xam na ne ndongo daara kokki association bi ñi mu ngànk ñëpp ku ne xam na ne léegi la fi Serigne bu jógee avant moom Serigne As Ndaw avant moom ñeneen ak ñeneen Serigne Abdoul Aziz Sylla Serigne mënu ma leen a tudd ñi ngi ci jataay bi bari lool ca ku ci nekk fa ngay yëngatu yaa nga fay amal njëriñ réew mi lool lool lool boole kook nag membre yi nga xam ne si ne ay CREI lañ yor wala ay sëriñu daara la ñu ngi ci lycée yi ñu ngi ci université yi ñu ngi ci euh, école secondaire école primaire yi waaye ñu ngi ci daara yi ñoom ñëpp foofu dem ci biir Sénégal da nga fa fekk ndongob daara kokki wala ku jàngal koo xam ne si ne ndongob daara kokki moo la jàngal loolu nga lu rëy rëy loolu moo tax kon bis bi lay mbokk yi dafay ñëw di mottali ay effort yu mag a mag yoo xam ne si ne mbootaay gi def na ko ànd koog yéen di euh, suqali waaye di yombal lépp loo xam ne si ne mooy dund bi fii ci daara ji ci Euh, projet yi nga xam ne si ne euh, mbootaay gi mi ngi koy def mooy lu jëm ci wàllu yar ak jàngale ndax si ama saxiloo yéeneem dafa nekkoon ku génn ci loxoom boo demee la muy def lam la nga jële fii ci kokki nga man koo continuer fa nga nekk ci anam gii wala ci anam gële anamu jàngale ak jàng ak anamu yar waaye anamu tabax réew mi loolu lépp ci jàngale la ko suñ si amat amat saxir loo tudde woon moo tax projet yi lépp loo xam ne si ne mbootaay gi sumb na ko euh, finalité ba objectif ba munta génn lii ma wax léegi bokk na ci yooyu ay projet euh, yoo xam ne si mi ngi jëm ci wàllu mbay ay projets yoo xam ne si mu ngi jëm ci wàllu euh, wàllu infrastructure ay projets yoo xam ne si mi ngi jëm ci waqf ay projets yoo xam ne si ne mi ngi jëm ci euh, taxawal ay daara yoo xam ne si ak école yoo xam ne si ne fépp ci biir Sénégal mbootaay gi fas na yéene bu soobee yàlla gox yu mag yi surtout nag danañ fa taxawal école primaire ak secondaire ak moyen ak secondaire bu soobee yàlla te loolu tàmbali nañ ko ca Ndakaaru tàmbali ko ca ca Thiès ca fas nañ ko yéenee lawal beneen ba mooy projet yi lu jëm ci wàllu mbay ñu ngi fii ci wàllu euh, ci ci fii ñu jege lool muy kër Momar Sarr xam nga ne euh, baaxee woon nañ sëriñ bi lu toll ci quarante hectares yoo xam ne si ne lépp dafay jëm ca lañ fay bayee du soobe yàlla dañoo namm daara yi duutul man duutul jëndi lépp loo xam ne si ne moo jëm ci ab dundam ci wàllu légume loolu nag tàmbali nañ ko ba vingt hectares yi la ñu tàmbalee exploité mu des yeneen vingt yi loolu nag ñu ngi ci soññi ñu ngi ci soññi jullit yëpp <laughs> waaw bisimilah ñu nga tëj nga. voilà léegi euh, xam naa euh, dama may may rek ma àggale tuuti. Euh, loolu projet yooyu ñu ngi ciy woo gouvernement bi surtout parce que mu ngi taxawal ay projet yu am am solo ci réew ci wàllu mbay. suñu suñu suñu hectare yooyu nga xam ne si ne moom la ñu baaxee woon ba ñu commencé koo exploité ci ngëneelu ay ONG moom yeneen 20 hectares yi ñu ngi koy ñaan mu jàppalal ñu ko ba ñu mën koo exploité ndax kat bu noppee lépp loo xam ne si ne daara ji soxla na ko ci wàllu woowu bu soobee yàlla dudd ko kon ñu ngi interpellé madame la ministre mi nga xam ne si ne moo yor wa euh, madame Fatou Diané mu dimbale ñu ci loolu am na beneen projet boo xam ne si ne euh, association bi mi ngi ko dërmal mooy li nga xam ne si ne mën na maa wax ne mooy actualité bu léegi léegi mooy boo demee ci Liberté 6 am nañ fa benn terrain boo xam ne si ne état bi moo ñu ko baaxe woon terrain boobee dañ koo bëgg a def fu moom tamit waaye dañ koo séddale ci ñaari anam benn bi ngir jàng la benn bi ngir location la waaye bu ci mën a doon ñaar yëpp seen finalité mooy la cay jógee bu soobee yàlla dafay dellu siwaat ci daara ji ngir mën a participer ci luy yombal liggéeyu yar bi ak liggéeyu jàng bi kon projet boobu ñoo ngi woo suñu mbokki membre association bi xale yi surtout ñu ngi leen di wax ne leen intégrez-vous ñëw leen ngeen bokk ci association bi ndax kët association bi mënut a am doole lu dul ci yéen sëriñ bi da may na ko doole lool ñuy jàngee ci daara ji may lañ ko doole lool képp ku génnee ci daara ji membre d'office nga ci association boobu li koy may doole nag mun ta nekk feneen fu dul ci yéen yéen ñi nga xam ne si ne yéen ay xale yi beneen bi mooy association bi mi ngi tàllal loxoom ci yeneen kuréelu nekk ci réew mi mm-hmm. association islamique yi ay may sëriñu daara yi ne leen bu mat sëkk bi nga xam ne si ne moom la daaray kokki façon yi euh, doon def boobu ba léegi ñi association bi nee na tàll loxoom ci association yëpp ngeen bennoo nañu bennoo ngir man ak sa ñu mën a atteindre objectif yi nga xam ne si ne moom la euh, moom la njàngum alxuraan laaj ca moom mooy bennoo ak jàmm ak dal waaye nag am xam gëdd bi nga xam ne si ne moom la réew mi teg kon daal ci gàttal gannaaw bi nga xam ne si ne ñi ngi ñi ngi def pression ci sama kaw xam naa li ma bëgg a wax lépp jëmale ko ci euh, cant gu may jëmale mboolee seen membre association bi ñi nekk biir réew mi ak bitim réew section yi yéen ñëpp ñu ngi leen di soññaat ñu ngi leen di sant waaye ñu ngi leen di soññaat ci biir kenn ñoo ngi sant nag dëkk bii nga xam ne si ne mooy kokki ndax ñoom day mbootaay gi nee na képp ku fi nekk donga daara bu mag donga daara bu ndaw nga woon donga daara bu ndaw boobu la ko tax a nekk mag yéen ñii la yéen a taxaw yéen waa kokki ak li wër kokki lépp yéen a taxaw lànk ne a Ahmad Sakhir Lo bu soobee yàlla liggéeyam bi ñoo gunge ndax li ñu sance doon kokki mooy alquranul karim Cheikh Matar Ndoumbé Diop mi nga xam ne si moo ko sancoon Cheikh ma Sakhir Lo dafa ñu daan fàttali ne dëkk bi amuñu droit di def erreur ci lépp loo xam ne si ne moo jëm ci alquranul karim lu amuñu ca droit di ci am ab taxawaay bu dul taxawaay bu positif kon ñu ngi leen di sant yéen waa kokki yéen ñëpp ci góor ak jigéen tey bu ñu mënee taxaw fii di wax yéen a tax ca ndongo daara yëpp ñu ngi leen delloo njukkal waaye di leen ñaanal yàlla di euh, di ñaan yàlla lépp lu nga xam ne seen song ngeen ko yàlla def ci yiw ak barke aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa salaamu jërëjëf euh, sëñ Massamba Euh, tënk na lu bare bare bari waaye temps bi moo ñu xoot xooj te moo jiite mbootaay gi kon euh, dañuy woo monsieur le maire mu ñëw def euh, monsieur le chef de village mais balaa muy ñëw ñu bàyyi suñu mbokk Serigne Modou Mbaye Alaji Modou Mbaye mu ñëw présenter délégation officielle bi ak ñu àndal ci benn minute rek incha allah su ko defee Cheikh Lo Diop chef de village préparé pour cadeau bi incha allah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 ku yàlla dimbali ba nga teew ci jataay bii ñu toog tey 1935 2023 juróom-ñett fukki at la ak juróom-ñett li fi ne tey ci ndongo di 5497 pensionnaires alxuraan yàlla na ko yàlla sol ci ñoom ñu am mbégte na gunge. ajartu Fatou Diané ministre bu jigéen bi xam ni moom la yàlla dogal muy ministre de la femme de la famille et de la petite enfance ci confiance su président de la république son excellence El Hadji confiance boobu nag rëy ci moom lool yónneent bu mu ko mës a yónni ci moom. waaye fii mu teew tey nag moo ko gënal fu nu ko mas a yónni fudul fii muy déclaré ni moom daal moom la yàlla dogal tey mooy ndey daara ji ànd ak une très forte délégation nag ñu ràññee ci madame Ndeye Nguinaar Mbodj gouverneur de la région de Louga àndandoo ki nga xam ni mooy monsieur Sékou Seydi adjoint préfet du département monsieur Mamoudou Ba sous-préfet de Koki Aline Badara vice-président conseil départemental bu Louga teewal fi Amadou Mbéri Silla empêché ñu ràññee fi teewaayu El Hadji Sele Maysa honorable maire de la ville de Koki di nit ku baax technique ministère waaye nekk àndandoo ak ki maître Ibrahima Gueye directeur de la protection de l'enfant àndandoog docteur Rokhaya Gueye directrice de la famille àndandoog madame Aïssatou Ayoba coordonnatrice bi yor PAPES àndandoog Abdou Karim Thioy mi nga xam ne mooy coordonné Palam ñu àndandoo ak ba tey ki nga xam ni moo di Alioune Fall coordonnatrice bi yor DAS àndandoo ak madame le ministre waaye ngeen xam ni soxna Asta si Sidi Mbacke mi ngi ci biir délégation madame le ministre àndandoo le commandant de la gendarmerie nationale de Louga àndandoo monsieur le commandant des sapeurs pompiers àndandoo le capitaine des services de l'hygiène waaye ni ngi àndandoo Mamadou Cissé mi nga xam ne mooy directeur développement communautaire adjoint maire de Louga. Marième Yes Bâ teewal fi Moustapha Diop ministre maire de la commune de Louga empêché waaye mi ngi àndoo ki nga ne mooy monsieur Fallou monsieur Fall mi yor IA bu Louga àndandoo ak Djili Wade hydraulique ak Ndate Diagne mi nga xam ne moo yor eaux et forêt Leyti Sow régional mi nga xam ne moo yegg santé waaye mi ngi ànd ak ki nga xam ne mooy monsieur Niang bi yor CSA waaye nag bokk yi ngeen xam ne ministre bi muy ñëw indaale na yërmande indaale na teraangay boppam ci daara ji indaale na teraangay président de la république loola waral mu teew si tey ci ndigalam waaye nag l'histoire du daara retiendra l'histoire bi retiendra mooy lan kenn ku ne da nga fàttaliku Serigne Bassirou Khadim Awa Ba muy toog ak jëfam ci daara ji da nga fàttali ko alaaji Abdou Aziz Sila ñu ngi koy nuyu di ko tatagal di rafetlu jëfam waaye ñu ngi fàttaliku Serigne Mbacke Mbuub ci jëfam ci biir daara ji fàtte wuñu Abdoulaye Dia bu Sénico fàtte wuñu Cheikh Lo Diop ci taxawaayam. waaye xam ngeen ni nag Cheikh Alioune Souane jëfam ci daara ji ku ne xam na ko. waaye nag dëkk bi daa am doomi boppam. le général Meïssa Sélé Ndiaye ma toog ci keppaaru président de la république. te itam yëpp nekk daara ji yàlla na lu ko yàlla fayal. mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu nag ki nga xam